homosexualité yi li ñuy def maanaam si lan la si diine wax daal Oustaz ñoo lay ziar. ñoo ngi lay la ñaanal ngeen yàlla taxaw seen chaîne bi li ci bëgg mu nekk mu mel ni danga laaj ci affaire homosexualité affaire góor jigéen mu ni yow da nga xaw a ragal question bi di la question bi mooy nit bu tooñee te wax nga monde musulman te jullit nga mu ba fi nga yaakaar ni sa xib la fi nga wéeru. mooy sa wéeruwaay yàlla yàlla jël néegam boobu noonu moom la rek la am ci kaw suuf ay góor jigéen dugg fa naan dañuy dañ fay def lu neexul borom bi subhaanahu wa nga ni loolu lan la ci diine wax balaa diine di ci ñëw ñun Sénégal dañ naan c'est le monde musulman mais man ñu ay duñu jullit yi ndax boo xoolee buñ demee ba suñu njiit ñu ne di jiiñ ay góor jigéen tey góor jigéen boo fi jàpp ñu bàyyiwaat ko suñu waxee ñu la lan lan la ñuy wax droit de l'homme lan mooy droit de l'homme droit de l'homme ba dul la wutal yow règle pourtant ñoom seen gouvernement bi day wax droit de mais am nañ ay am nañ ay règlement intérieur l'islam la amee règlement intérieur am noonu la amee boo defee lii ñu def la lii boo bàyyee lii ñu bàyyee lii mais bu ñu demee tey ba temps yi la benn professeur bu ñuy wax Diagne génn wax ni gouvernement bi génnoolu yëpp ay goo jigéen lañ ñooñu daan jàpp góor jigéen ah bu ñu dajee ba ñu léegi monde bi léegi ku doonul góor jigéen doonoo doonoo formation ko jiite fan lañ jëm suñu réew mi te kenn du wax ku wax ñu jël si la fan lañ ko teg peuple Sénégal ñu yàlla dogal suñu kilifa diini yi yàlla ñu ne suñuy kanam il ñu réagir il faut que ñu parce que ñoom la ñu jiital ñoom ñoo am satar ñoo am sulta ñun amuñu satar amuñu sulda ñoom la yàlla dogal tey ñoo tey ñooy suñu njiit ñooy suñuy kilifa li am nii tey ñoom ñoo ci war a njëkk a taxaw tey xeex ko xeex ak le gouvernement xeex ak peuple Sénégal ana noo sécurité sécurité sécurité bu ñoo Sénégal anamu nga jël néegu yàlla leen wa anna al masajida lillahi fala tad'uhu ma'a allahi ahadan ay ñaari ay ay ay ay ñoo xam ne ñu tekkiwul dara dem fa di def naka surul noonu da ngay toog deux jours trois jours nga dégg ñu ne bàyyi waan nan leen ñooñu si police waru woon teg ci ñoom loxo ñooñu bañ fay génn ay néew la ñu waroon doon mais ñu woon nekk ñu ñuy jàpp ay police di leen yóbbu temps yi jàpp ñu fi ay góor jigéen jamono jii jàpp ñu fi ay jigéen góor jigéen kaw la ñu def lu lu lu neexul temps yi pass jàpp ñu wuñ leen ah tey lii amaat gis nga buñ ci jugul buñ ci taxawul wax naa la léegi ci émission yi passé man la yërmande yàlla moo yaatu mais am na xeet yu ko doon def yàlla daf leen soppi foofu am na ñu ko doon def yàlla soo leen soppi xeer waa ja mën a lut yaa dafa gas kàmb xar suuf si ñu dugg ci mais ñun yërmande Seydina Mohamed moo yaatu yërmande Seydina Mohamed moo yaatu waaye nag li mu la mën a xamal mooy soxna si soo bëggee dégg-dégg day jëm ci kanam muy affaire góor jigéen yi bu suñu kilifa diine yi taxawul parce que nos dirigeants ñi ci ëpp wax nañ ko ni ay góor jigéen lañ mais ne mooy góor jigéen la moo leen ci dugg àllu àdduna àllu àdduna bari na dem na ba léegi am ñoo xam sax ay doomu kilifa lañ léegi dañ leen di joxe ñi si lañ bokk lan moo ci war a dugal comme comme àdduna kër gu rafet oto bu rafet te dafa am benn boroom xam-xam bu ñuy wax xumay euh, ni bi muy ñëw di jël di jël di jël bi bi muy ñëw pourtant bu ñëwee fekk dafay góor jigéen fekk na lu neexul yàlla mais dafa ne képp kuy góor jigéen tàllal naa la loxo ñëwal keroog bi ñuy ñëwee ñoom góor jigéen yëpp ñëw. ñi nga xam ne feebar la mu faj leen ñi nga xam ne dañu nekk na ko sul doon mu duma ba ñu bàyyi ko mais bu ko te am ñoo xam dañuy feebar ñii dañuy feebar di tuur ndox ñii feebar di tuur ndox seen kaw la rek ñii dañuy feebar nekk ay homosexuel nekk ay guddi mais le gouvernement pour pourquoi pas mënul oser tàllal génne woo góor jigéen yëpp ne leen yéen dama leen a soxla ñoom ñu génn am ñoo xam ñoo ngi laax ay góor jigéen lañ mu woo leen ñoom ñëpp di leen fekk leen place sàngam ñu leen soxla Macky Sall woo ñëpp ñu kenn ku ne ñu laaj la moo la ci dugal bu dee ñu feebaru ñu faj leen bu dee ñi xam ne ñu ko defee seen na suñu duma leen bàyyi ko man laa ci xam xaw ma ci leneen loolu laa ci xam soxna si xaw ma ci leneen duma ne yàlla nee na nii wala yàlla naa mais dama ne la ñu ay jullit lañu te Seydina Mohamed lim ñu digal mu jaar na ci borom subhanahu wa taala mooy góor ak góor du ñu sëy jigéen ak jigéen duñu sëy góor ak jigéen ñooy sëy te bu ñuy sëy sax day fekk ñu def ko ci fartu yàlla sunna su Muhammad ak place bu ñu ko war defee doon te doom ci bu ñuy sëy sax may na leen ñoom ñaar ñooñu bu demoon ba nekk ci jàkk amuñ fu ñu dëkk ndax jàkk moom mooy lieu de culte la waaye may ñu fa ay góor jigéen ñu fay dugg walaaw sax di fa def naka sulu noonu loolu mooy sàtte l'islam loolu mooy doy de l'islam il faut que ñuy réaction yi nag xam lan moo waral ñu bàyyi seen kër yi seen hôtel yi seen néegi yi ñëw ba ci néeg yàlla di ko def ça veut dire que am na ñu ne seen ginnaaw di saaga lislaam am na ñu ne seen ginnaaw di bundu xataa lislaam kon ni yàlla dogal tey ñu téye boobu lislaam war nañ ci réaction bu baax a baax nit nag lu mu bëgg la yàqal mu jaral ko lu ne yow war na naa jaral lu ne ba du la ko yàqal loolu laa am lu mu la ci wax soxna si. maa ngi jégalu ñëpp. donc Oustaz ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. tontu bi rafet na trop. donc li ñuy wax daal mooy que ne nañ bàyyee xel li nga xamante ne mooy homosexualité bi parce que fi mu yegg fi mu instant bi nii doy na waa trop